bu loolu weesee yàlla daldi wax ne ci làmmiñam ci la yàlla sakke lépp yàlla daal dafa doon wax rekk ne lii na am loolu daldi am noonu yàlla wax ne nañu sakk lépp loo xamante ne dafay naaw ci jaww ji ak ci suuf si maanaam jën yi li deme ni picc yi war a naaw ci kaw asamaan ak rabu àll yépp te noonu loolu yépp daldi am ni ko yàlla waxe yàlla xool ne looy lii mu sag yépp baax na te mu daldi barkel leen